وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر asalaamaaleykum ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu bu wér a di leen di leen masawu coono ci safar gi ñu nekk waaw euh, nag di ñu fi teewal euh, Touba Sens médical daanaka ñu ànd fi liggéey bi ñun la docteur Sow docteur Mor Sow ñu représentant relation extérieure bu Touba Science Médicale euh, tey tamit ñu ñu ñu ñu tegaat euh, liggéeyu supervision ci ci fii ci jumaa ji ñu war a superviser équipe euh, médicale bi nga xamante ne nii Touba Science médical mettre na ko à la disposition jumaa ji ñu ànd kook daayira Muxaddamatul Xidma daanaka ñu tàmbali ko woon daaw ren ñu fas yéene koo tollanti tey nag di bés bu njëkk bu ñuy tàmbali consultation yi euh, équipe yi euh, mu am ay équipe yi composé wu de médecins composé wu de pharmaciens euh, ak également aussi mu composé wu d'infirmiers waaw donc ren nag dañoo gën a renforcer équipe bi ndax gis nañ ne daaw xëy na liggéey bi métti woon na lool waaw waaye nag sant rek dañ ciy sant rek. moo tax tey matuwaay yi ñu jël yëpp dañ koo dañ koo jàngat ci expérience bu ñu jëlee woon daaw daanaka ñu renforcer équipe bi bu baax a baax a baax équipe bi daanaka mat na cinq personnel yi nga xamante ne nii ñoom lañ fi déployé moom la fi Touba assistance médicale déployé. am na tamit ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale démb ba tey ndax daanaka am na fi ay bonne volonté ay ay ay médecins yu ne ci dëkk bi ak jóge feneen envoyé fi seen i pour ñu jàppale ñu ci liggéey boobu en renfort donc ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax fi toll nii. Euh, mënaguñoo wax nag ci cas yi ñu amagum ndax daanaka bés bu set dañuy def rapport te comme que tey la suñu ndorteelu tàmbali daanaka rapport bi 16 heures lañ koy mën a jébbal xam naa ne bu doon ci kanam tuuti dinañ mën a xam cas yi ñu fi def bilan cas yi ñu fi gën a jot. waaye tamit ci suba ba tey ñu mën a tënk ne ñu ngi fiy jot ay patients ñu ngi leen di stabiliser ñu ngi leen di libérer suñ borom dogal na ne ci kattanu sëñ bi amuñu kaa boo xamante ne nii dépassé nañu. ba pare am na benn ambulance bu ñu mettre à notre disposition nga xam ne mi ngi ci buntu jumaa ji saa bu ñu amee cas boo xamante ni nécessité na à ce ñu référé patient bi ambulance bi dina mën a réactif parce que yooyu yëpp ay njàngat la ci li amoon daaw li amoon li li am ren donc le temps dañuy gën a améliorer moo tax ren ñu teg benn ambulance bu bu jaree ñu yokk ko ñu def ñaari ambulance yoo xam ne saa bu ñu amee urgence dinañ mën a référer patient yooyu am na tamit ay jumtukaay yu fi ne lu ci mel ni ay garab lu ci mel ni ay matériel matériel yoo xam ne nii yenn ni jóge na fu ne ay ay ay bon bonante joxe ko am na ci ay médicaments yoo xam ne Touba Centre médical indi na koy tamit donc yooyu yëpp mu nekk loo xam ne dafa nekk participation wu ñun mbooloo bu ñuy représenté mu doon loo xam ne sacerdoce sa ci ñun maanaam ab ndigal la bu ñu jot te dañ koy wéyee saa su ne ba keroog ñuy sàngoo suuf dañ koy wéyee donc muy loo xam ne lépp lu ñuy yittewoo du lu may képp ku ñëw màggal si boo indee tawat balaa ngaa ñibbi mu saafaraw képp ku mu fi dab tamit balaa ngaa ñibbi mu saafarawu donc looloo nekk suñu objectif bu ñu sañoon tey duñ toogee suba ba ngoon gisuñu malaat dañ koy def tawféex ndax du structure boo xam ne nii dañuy jaay garab du structure boo xam ne nii dañuy dañ dañ ciy dañ ciy jëlee dara donc lépp luñ koy def rek dañ koy def ngir màggal gi tax te tout est yi amul garab buñ ñu fiy jaay lépp luñ fi consulter nit rek jumtukaay yi ci war amul dara luñ ciy fayeeku nit loolu lépp nag ay murit a ko taxawal ñun ñu indi ci suñu xam-xam indi ci suñu expertise ñu fas yéene tënk loolu lépp ak daayiratu xidmatul xidma ñu liggéey liggéey bu rafet incha allah fexe ba daal ba ñu ñaan bañ fay am kaa bu ñu dépassé ñu ñaan tamit ku fi ñëw indi tawat balaa ngay dellu incha allah ñu saafaral la ko ñu ngi leen di sant bu baax a baax abaxya fi ixdami xayril wara bada wa fi kulli shahrin zayd ribxi wa fi safar